salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV ñu ngi nii Thiaroye nee naa la tey journée open press la baa ngi fii ci open press alliance biram nee naa la ambiance ma fekk neex na lool sama caméraman topp ma lamb coñu cosaan ñu bëggee démb ma seeti woon caatu ngewal open press bu neex tey ñëw caaroy open press bu neex caatu ne ma combat bi yéen wax rek ngeen ci am. waaw ginnaaw ma sant yàlla nuyu julli si yeneen bi di sant suñuy waajur waaw di nuyu waa yëmbal gi yëpp xam nga di leen nuyu seen di sant teewaay parce que dafa am lu xew la Baye Fall bee xew la muy alliance biram waaw doomu yëmbal la doomu Farba la waaw di ko wax ne ñun déretu yëmbal gi mooy daw suñu yaram 100 pour 100 bi waaw di ko ñaanal incha yàlla incha non di nga gis loo mus sa gis mais combat bi combat ñaari Baye Fall la parce que caatu ngéwal démb dama fekk mu génn jaaj yi Baye Fall yi wër ko tey ba ñëw fii fekk Baye Fall yi wër yéen yéen tamit du caaxaan alias Biram Baye Fallam laa gis uh-huh. waaw Baye Fallam laa gis waaw yéen yaakaar ngeen ni combat bi dina gaaw incha allahu rabi alias Biram xam na lu ñu koy waajee xam na nu koy waajee xam na nu mu waajee ak ay mbokam incha allahu rabi ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla moo yor ndam yàlla ko jox tam gën si ñun loolu rek la ñuy mais moom tey la dugg yëmbal maa la ko wax nii moom tey lay mujjee dugub bi yëmbalu baax na lu leer léegi yéen lu ngeen lu ngeen bi ak ñi nga xamante ne ñooy supporters yi waaw di wax nu lamb la quoi ñu dem si jàmm xam nga di leen woo si jàmm ñu tamit di woo waa Farbay waa yëmbal gi yëpp si jàmm xam nga incha allah rab ñu dem sport la xam nga di ñaan rek yàlla suñu borom muy maye ndam mu jox nu ndam te mu gën suñu waaw mbër ani tafatin mbër mu ngi fi mi ngi ci jàmm waaw mu ngi jàmm waaw waaj ko mbaam waaw mu ngi waaj ko mbaam waaw mais tey ñu gis la ci open press alliance biram lan moo waraloon teewaay bi sama doom day alliance waaw day sama doom day di sama xarit di sama seex bu xewlee day yoon la ma def ci teew waaw noonu la demee quoi caatu ah, nge wal ne ma bi yéen wax ngeen ci am arbitre soufflé seen mbër ngeen koy jël si au contraire bi moom moom moo ci am wax naka naka ngeen préparé seen bën. côté bépp pare nañ ko. côté mystiquement. lépp na lépp saa yee. waaw ah, yaakaar ngeen ni combat bi la 19 ndab li si yéen la jëm si. ci kattanu ah. ñaan yàlla. Uh-huh. kenn moom nag yàlla rek a moon mais ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla maa ñu ndam. loolu lañ naka ngay wax supporters yi ak fans yi nga xamante ni ñoo war a dem combat ba la 19. waaw ñu waaj rek ñoo mobiliser ak ja ànd ak alliance Birame yàlla suturaal ñu may ñu ndam loolu rek la ñuy wax uh-huh. waaw. Ah, jërëjëf Adja Niofar jaajëf. yëgal ñu làmb ji ñu nekk ndaw bokk ak moom koox bi ànd ak moom ci li muy liggéey muy mbër ñu pare pour ànd ak moom jàppale ko ndax ku nekk ci li ngay yëngatu ngay jàppale sa morom loolu moo waral tey ñu teew fii bon dañuy ñaan rek ci bis bi ñu jëm yàlla may ñu ci ndam di profité ci occasion bi di woo autorité yëmbal yëpp képp kuy autorité rek mu jàpp ci mbër yi ndax ñoom lii lañ am te ñun ñoo nekk ci beneen fànn wi kon ñoom ci fànn wi nekk dañ leen cee war a jàppale donc dañuy lancer appel képp kuy doomu yëmbal am mënaluñ seen bopp am na loo xam ñun ñoo leen ko mën a donc dañ leen di woo ñun man ak samay morom ñi fi nekk yëpp tey yëngatu ñu ànd jàppale leen yàlla may ñu ndam ci bisu samedi bi incha allahu rabbi maa ngi jégal ci kàddu yi baax a baax c'est juste euh, mbër tey ñu ñëw fekk si la fii sa gox nga def open press bu neex euh, naka nga waajee combat bi ak fan nga ci toll. waaw gannaaw baatu onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba te eh, yàlla da koy dëgg te mooy borom dëgg moo fi jox Bamba dëgg ba tax bu daal di signé Bamba ne wa salaamun alal man tabax lu daa jërëjëfe Serigne Touba ah jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba nu mu ñëwee dañ koy jëfe nu mu mën a ñëwee dees koy jëfe kon nag ñu ànd ak taalibi ah tënk na lépp <laughs> waaw gannaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Basir Fall alxuraan di wax yàlla ñu suñu borom taas si leeram di siyaare xalifaam bi mu fi bàyyi muy sëñ Gunda Bas alxuraan ak njabootu maam Sera Fall bi yëpp di siyaare sëriñ Maxtaar Mbacke noo leen ibnu sëriñ Mbay Mbacke di siyaare sëriñ maam Seex Fall ibnu Seex Ablaay Fall Ndar di siyaare sëriñ Fallu Mbacke mu sëñ Asan Mbacke di siyaare tamit sëriñ Mbacke Bousso Mara di di siyaare Laay njabootu Baay Laay xam nga njabootu Ndiassane bu waa Koungheul Koungheul te Ndiassane waa kër maam Limaamu Laay ñu ngi siyaare ñëpp waaw di rafetlu tamit seen teewaay fii nii di rafetlu tamit xam nga gars yi niñ accueillir bi parce que nit amul lu dul woote mhm. amul lu dul woote bu la nit ñi wuyoo rek nu mu mën a tamit da xam ne yow la ñu rek da ngay a maîtriser waaw di wax ñu xaar question yi nga jëm ci combat boo xamante ni dafa doy waar waa Yoff démb ma fekk leen seen open press caatu ngi wal ne combat bi wax rek nga ci am bu xam nga yooyu waxi waxi mbër la quoi parce que mbër bi wax ji moom mën nañ ne moom lañ ko bàyyee yooyu ëppan presse yi signature yi ñu def yëpp yaa ngi fa bu wax di am moom moom moomee wax ji mais man ak caat quatre jours si des xaw ma soreetul kon wax ji jarul sax muy bëri xam nga la laay wax moom xam nga ay affaire mbayaar lay wax mais ñun nga xam ne ñun ay Baay Faal la ñun doxuñu si affaire mbayaar buñ namee xool ay mbirum mbayaar wala ñu koy déglu ñu dem déglu Cheikh Moussa Ka ndax moom mooy wax li borom bi wax mais ay affaire mbayaar yooyu ñun loolu góondiwul ñun si ndox mi taawee lañ dëkk ñun farba lañ dëkk yëmbal am na yoo xam ne ay du jees quoi ñun wóoruñu loolu noonu mën a caatu ngewal nii après lay sib na ko waat barke alxuraan am si lu ma jugee xam nga làmb ak lu mu tëradee moo tax ma bëre caat mais samedi samedi la ñëpp di xam ne man sama place du ay caatu ngewal ak géew naka naka nga préparé combat bi ak sa waa écrit ak waa koñ bi parce que aussi tamit ku na xam na ni waa euh, Yoff la euh, ca caatu ngewal di jóge pour dem fa nga xamante ni moo di arène nationale est-ce que pare ngeen pour jéem a a place nga xamante ni moo nekk arène nationale parce que combat bu mag ngeen di bëre waaw ñun pare nañ ak suñu waa écrit wax dëgg fa yàlla ndax combat bi boo ma xoolee sax xam ne dama sonn mm-hmm. waaw ba ma xoolee rek barke alxuraan mu fi jógee nii trois heures deux heures du matin laay boo ma xoolee xam ne dama sonn billaahi open press bi mënu ma si dara njaay dinañ ci ginnaaw loolu may wax ne buñ paree fa lañ jëm direct dama si combat bi nii ki gën a sonn si combat bi yàlla na ko yàlla may ndam barki alxuraanu karim bu dee liggéey rek mooy mayee ndam si combat bi nii barki alxuraan combat bi dund naa loo xam ne bàyyi si côté bépp côté looy xalaat luy metti lu ne dund naa ko si combat bi tey la nii rek xam nga affaire yi sorti mooy loolu noonu mais imagine mbër buy toll ne man di bëre ba heure bi may waxee yow sa waay amul benn autorité yëmbal bu ñëw pour soutenir ñu dugg si kenn amul kenn koo xam ne ñëw na pour soutenir ñu xam nga dafa metti ngay bëri avance bi depuis kañ la taxaw si corona bi la taxaw xam nga ngay dund lépp mais man am naa su may gaan su may grand am naa suma booy yi barke alxuraanu karim su may voyage yi ñoom ñoo def ay sumb xam nga ñoo def ay sumb def ay kermesse xam nga génne seen xaalis mun naa ne man moom laa voyagé moom laa génne fi ma war a génne ñëpp mais boo bëggee dégg-dëgg man ay affaire politicien man maa ko man maa man maa décidé duñ sax di bëri di dem si politicien man loolu moom bu dee man man rek non ça va xaaruma benn politicien si dara te dem si benn politicien mais am naa sama booy yi kenn a bëree grand combat ëpp ma fee saat raay ma bëree ma ñëwee samay morom ku ma fi ëppul mbooloo doo ma ëpp mbooloo te amul autorité buy ñëw naan maa ngi jàppale alliance bureau bàyyi dafa meti xam nga am na loo xam ne dafa waaw neexul si xol ñun bu ñuy bëree drapeau yëmbal la ñuy yóbbu barke alxuraanu karim foo nee yëmbal boo nee benn mbër diñ ci teg alliance biram mais gars yi buñ jàppee kii farba dëkk wala fee ñun farba dëkk dawuñu loolu mais nañu jàppale affaire yi amatul ay affaire yu ay dama war a jàppale kii war dama jàppale kii booy jàppale nit na yëmbal da ngay jàppale ñëpp mais bul naasuñ ba affaire farba dëkk lee affaire yu la lii affaire yu yee nañ def loolu mi naka ngay wax xale yi nga xamante ni ñoo topp sa ginnaaw ñi nga xamante ni ñoo a ñëw stade le 19 waaw di nuyu ah. ñu bokk koñ bi amaana mooy loolu noonu xam ab ndaw la moom dañ koy comprendre am na yéene bi ndax saa yi ñuy bëri dina ñëw suñu kër mais xam nga tamit affaire tamit day am benn tono moment boo xam ne doo ko moom suñu doomu yaay la moom même bu dul làmb sax wóor na alxuraanu karim dañoo yàgg si koñ bi mu yéene ñu kon ñëwam bii nii dañ koy rafetlu liñ wax nag moom taxul ñuy wax quoi ndax ñun fuñ mën di gisee dañuy taxaw waxtaan dañuy conseil ëppan du tey jii lay doog a ñëw sama lambo ah bëre lu ma mu jungul trois combats muy ñëw mais di ko wax fi mu ko toj noonu noonu la rek parce ñun soxla nañ xale boo xam ne day politique loolu laa amoon si li ma siy wax mais daal li may wax mooy xaaruma benn politicien si dara ku ma gis baax na parce que am na yoo xam ne ñàkk fayda la topp benn nit di daw sama booy xam nga laa wax ñu mobiliser wu man mosuma bëre ñu wàññil ma billet 1500 nañ waaw di wax tamit combat bi waaj nañ ah, ak sama waa écrit siyaar bu baax boobu ba tey dugg na fi daan daan fi dugg waxal ci ah, mais am na loo xam ne bi nga ñëwee maaro wax naa la ko caat bu njëkkee woon si man dootul xool sax ku dëkk yëmbal ñun yëmbal lañ juddoo lañ yaroo lañ màggee ay doomu bawol bawol lañ si ndey ak si baay waa ay diwaan su ma grand la jaatu baay paate su ma doomu yaay la booy jóob benn baraag su ma mag la barke alxuraan bi adunaam boo nekk koo si gën a bëgg alliance lay wax lu bu ma rombee yor sareetam sax day taxaw chaque jour damay ñaanal combat bi xam nga la ma ma si war samedi ma jàpp caati ngéwal ne ko nii ngay def ni laa lay def far force mu def loolu rek ma war si combat bi boo bëree da lay wàcc boo boo xeexee da lay dóor nga toog. waaw waaw daa booyee booyee. posé leen question waay ah. posé wuñ leen question waay ah. bon Diop dañ leen a posé question yooyu da ngeen toog ngeen déglu ah. xam nga am na yoo xam ne booy maa leen ko ñaan ko waay yii nii ñu bàyyi loolu ñu déglu ñu xam nga parce que tamit suñuy morom ñoo koy def ah. waaw yee maa leen ko ñaan yéen ñëpp xam nga parce que amul sens. suñuy morom ñooy open press muy jàll kon bu ñëw ñuy indi li ñuy bàqee bu leen ko si def quoi xam nga ñun ñoo war a defar après bu ñu demee làmb ña nag lu waaye def dagar na man xam nga ne li jënduma dara póoruma dara mais fii comme ñi suñuy naw la ñoo fi ñëw bu ma sañoon ngeen déglu ñu ñu wax après après kuy dem dem quoi yee mu ànd caat dugg na yëmbal quatre fois daan fa quatre personnes mais tey Baye Fall bi lay bëreel yaa la man póoruma dara barki Serigne Touba moo combat bi nu ma leeree ne caat fu ma ko jëmloo fa la jëm no compo sax combat bi bu dee coonaay mayandam laa la wax barki alxuraan caat duñ bëri bu ma ko xoolee mu daanu. mystiquement loolu moom lu leer la xam nga tamit làmb amul benn sëriñ booy dem dëgg tàllal loxoy kese li ma la expliqué sànq rek métti na sama côté moom xëy na looloo taxoon mu jëfru di wax. mais lamb na xam ne lamb foog am bi newul pimp pimp jeexul ñun ay séeréer lañ ay doomu séeréer lañ lamb ji bu ko tegee si ay misik waxoon ko day juum xam nga moom moo fi nekkoon affaire musique yooyu amul sens affaire yi interne la am doole après li des nga bàyyi ko say mbokk ñu dox mais ay affaire musique yooyu maa ngi koy dégg mu naan lamb la rek sama ëppandi stress tax mel noonu mais moom ba tey ay affaire gàllaaj man géemaguma si yooyu sax moom moo taxaw ne képp gàllaaj ko def lépp yàlla ko yàlla may ndam kon yàlla na yàlla wuyu loolu rek loolu a wax la mu tëkkaloo lu yàgg yàgg fu ne taxaw na fa pour yéen ñaar ngeen bëre taxaw na si pour ko sax mu ne tey ñu gis Thiatou Nguéweul mu war a bëre tamit mu ni moom combat bi pare na ko wax boobu ba léegi gisoo kenn ku la jàppale est ko waaw li ma wax noonu moo nekk ah, moom yàgg na ma tëkku yow xam nga si dara daje nañ stade sax muy coow ak sama booy yi xam mi ngi naan ñun ñoo ko doon sot mais jour boobu man sax yënguwu ma si xam nga lu ma la wax nii yàgg na ma dëkk mais tey lañ war a bëri man ak moom xëy na tey la ko yàlla tudd mais la jóg xamal laa la mën a xamal pare njëkk maa jëg si musique maa yooyu yëpp garaawul xamal la moo am sens ndam te incha allah damay indi ndam waaw avant loolu tamit jàppale bi xëy na dëgguwul balaa añaa di ñëw balaa añaa di ñëw benn question rek muy suma grand ko defal non yow it sa mais boo caatu ngewul fu ma loo laal suma caatu caatu ngewul fu ma looyee laat xaani bombardier la toll <laughs> ki sa nekkul da ngaa bëgg ma rey moo tax nga amal loolu laaj bi <laughs> lekkatu suuf bee nga amal moo la lool raadu la. léegi lan ngay wax fan si ak lan ngay tëjee. waaw li may wax mooy di siyaara ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla boobu ba léegi ñu ngi may guddi ñu ngi may bëccëgal ku si mel ne ko defal wóor na Serigne Touba dafa yëkkati xaalisam jox ma xam nga parce que xaalis dafa sax si xol Baye Zal su ma mag bi nga xam ne ñoo bokk nday ak Baye barke alquranu karim li tolloog weer la jël otoom lu mu liggéey man koy jox mun naa ne combat bu jagee fii moom si la ngañ demba suma gaan maa koy gërëm bu baax Biram Ndiaye Biram Ndiaye itali maa ngi koy siyaare Maguette Gaye itali maa ngi koy magget Espagne maa ngi koy siyaare suma gaan jàpp na si combat bi commanda bu yëmbal bi tamit wax dëgg fa yàlla jàmbaar la parce que bu ko neexoon mu ne lii laa sekk ak nawle mais lii laay def ak ñoom ba léegi gis nañ ko ba mu si ñëwee ba léegi wax dëgg fa yàlla ñoom ñu ñuy soutenir lépp ñu ngi ñuy conseil xam nga ñu ngi dawal suñ promo ñu ngi def lépp parce que luñ xewle bu ñu ñëwee si ñoom dañuy waxtaan ak ñoom ñu comprendre ñu bu leen neexal duñ ko def kon ñoom waa police yëmbal bu bees bi ñoom ñu ngi leen di siyaare bu baax ko defaal siyaare waat naa ko di wax bëgg naa ko xam nga bu wërëwal suma grand Serigne Diop ngañ dem ba suma gaañaan maa koy siyaare suma waa kër ñëpp xam nga ku nekk si kii rek da ngay juum mais candee la suma doomu yaay la du ma ko gërëm njaay tin moom ñoo bokk lépp kon kooku jaruma koy tudd suma magu bopp suma xol muy Zal Bambay wóor na alxuraan amul lu ma tegul si combat bi ak ikiri 100 pour cent yëmbal bi 100 pour cent yëmbal bi maa ngi leen di siyaare bu baax waa ikiri jari Birama Coor ku lim da ngay juum Moodu Fall sëfëru Njaga Njaay suma doomu yaay la barke alxuraan amul nelawul deful dara ak suma mafia jolof laa dëkk bi waa jolof laa dëkk bi ak waa mbaar mi waa di bëggee tamit waa mbaar mi ah waa mbaar mi tamit mafia mbaar bi jolof laa dëkk bi waa Miami waa Tekele waa Tësso waa poste courant bi tamit maa leen ma la waa Sam-Sam di siyaare waa ba ñëpp ma leen woo si combat bi képp kuy doomu Farba doomu jàmbi réew doomu Tendi doomu Sam-Sam Touba doomu gëstu doomu cosaan doomu xandaalu doomu déggoo képp ku nga xam ne 100 pour cent moo nekk si waa naataange 100 pour cent yëmbal képp ku mu nekk si yow ba jàmm gën si gàmbaaw maa ngi woo ñëpp waa bitig ba tamit maa ngi leen di woo waaw waaw ñoom Moussa sama convoi moto bi sama convoi moto bi maa ngi si di siyaare nuyoo bi nag ko tegee si loxo papa Aliou ay laay fay ñun yóbbul ma ko si gaa yëpp xam nga waa mbaar mi ñëpp rek ku lim da ngay juum di wax tamit gars yi nañ joxante rendez-vous ku bëgg a ñëw stade nag wala ku bëgg a convoi moto bi gars yi ku seetaan lii muy sa lancé xaaruma kenn xaaruma kenn Ndiaye Tine bëggee naa ko bu baax suñu entraîneur Ibra bëggee nañ ko Tapha Tine damay jàppale combat suba ngoon suba ngoon damay jàppale combat Tapha Tine damay jàppale combat di yëkkati xaalis bi ma jox parce nit tamit bu waxul dëgg gémmiñ gémmiñ bu waxul dëgg gaan wala gémmiñ bu waxul dëgg wax fen nit ku la defal teraanga da ngay taxaw nga wax ko barke alxuraanu karim Tapha damay jàppale contact barki Serigne Touba chaque jour moom may jox essence billaahi wallaahi wa taala day yëkkati xaalisam di ma jox di ma jàppale kontaan ak sama benn doomu yaay benn defe yaa nag góor Malick Gakou bi tëdd karo bëggee naa ko waaw di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne di siyaare média bi yëpp ah di siyaare gi gars yi fi teew yëpp parce que bu leen neexoon tey ëpp na bëri na ñu dem foofu dem nañ ba abada dem nañ ba si koore dootuñu ñaaw wër yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah yo nee na maam Bamba nee na yaa jarawu law bi la allah rabbi yàlla la ilaha illallah muhammadu rasulillah bay xadimi rasul yone na maama bamba nee na yaa jara wóolu Muhammadu rasulillah yaa jara wóolu